mbokk yi dal leen jàmm ci seen ëttu xamlekaay gi del siwaat di leen indil taarix ak solo sa a poroxaan bu ñu sukkandikoo li ñu jot a xam ci taarix soxna jaara buso mooy génnuk jigéen dong gu am bés bu ñu koy màggal a boobu lépp bés dëkk ci diggante màgg ak diggante dajalek mbooloo saa su dellusee baax na it ñu daal di xam ne a bu dee yeneen màggal yi dañoo daal di am bés bu fixe bu ñu leen di amal la saa su nekk bu poroxaan naka demeewul noonu benn yoon tax a jóg du lenn lu dul delloo njukkal ak it màggal way juru xaadim rasul bii di soxna jaaratullaa moom màggalu ko poroxaan mën nañ ko amal saa su nekk ci at mi ndax jàpp ga moo ngay aajo rek ci njabootuk sëriñ Basiru Mbàkke waaye it ci déggoo ak ndigalal ki fi teewal cheikhul xaadim di xalifa général kulub a nangoo nañ ci lu wóor te leer ci sëriñ Basiru Mbàkke doom ci sëriñ Moustapha Basiru ñu gën ko xam ci sëriñ Bass poroxaan sabub bi lépp màggal mu ngi jugee ci tegtalu dëkk bi barabub soxna jaara buso ñu ci ko fa sax ci lu jege atum 1866 daal di doon célébré yoonu bépp taalibe donte sax bi mabba jaxu génne àdduna ci atum 1867 nekkoon ki yóbbu woon Mamor Anta Sali ak njabootam ca boobu lépp dëkk jàmbaar ak kilifa diine yi àndoon ak mabba jaxu yépp dañoo daal di dellu ci seeni cosaan loolee daal di waral Mamor Anta tamit daal ànd ànd ak Lat Joor ca Kayoor bokk na ci doomu aadama yu néew ya fa desoon ku ñu naan Kani bokkoon sax ci askanu ko olof moom Kani moomu da daan gis sa guddi ak leer gu fenqo ca penku këram bi nga xamante ni ci atum 1912 kii di a Khadim daal dinay jóge Mauritanie moom Kani mu daal di koy fekki ca Diourbel daal di waxtaan ak moom ci mbir moomu ci noonu la ko Cheikhul Khadim daal di koy faxam fàcceel mbooleem luy jëmmal fa ñu jën ci waajuram maamam bu tedd bi di soxna jaara bañu ñu méngalee ko sëriñ bi ak fi kan di gisee googu ka leer mu daal di yem ak barab bi keroog bobé sax la kan yi mujjee gis lolu ci nonu cheikhul khadim daal di yónnee doomam ju bari xam-xam ji ñu naan sëriñ basirou mbàkke mu daal di dem ci barab bobu dat fay wërale ay dénk waye yit di fa ci sak ané di ko ziar ak yit di ko defal ay ñaan ab bi cheikhul la ko la talibé yi faré won fi ci diwanu pa salum daal di ñaan ñaan sëriñ Basiiru Mbàkke ndigal ngir amal màggalu ko poroxaan at mu jot bi sëriñ Basiiru làqoo ci atum 1966 la ko tawam bu baax bii di sëriñ Moustapha Basiiru daal di donn moom sëriñ Moustapha mu toog place su baayam mat ko sëkk tàmbale ci tabax dëkk bi waaye it daal di defaraat barab bi ci atum 1971 waaye it gën koo méngaleek jamono ci atum 1983 sëriñ Moustapha Basiiru nekkoon ab tabaxkat bu mag ndax ci atum 1970 la fa daal di defar ab résidence waaye atum 1983 mu defaraat jumaa ja daal di koy lëkkaleek barab ba moom Serigne Moustapha Bassirou moo ngi génn àdduna atum 2007 nekkoon ab baykat ak nitu yàlla bu mag ci noonu Serigne Mountakha boroom taar bi daal di koy wutu mbokk yi ñu ngi leen di jox dig daje beneen yoon ci yeneen i jàngat.